sëriñam bàyyi di daw doom doom di daw bàyyam njiitu réew mi daw làqu ji fu kenn xamul ñu mel ni ñu nekk ci bésu penc ku ne daw sa morom ku ko jàppee ni ay léeb la daa tàbbeegul sa kër ba yóbbu sa maam këral sa baay loofal sa njaboot wax ji mënu la neex maa ngi ciy jéggulu waaye ku xamul buur saay na ñu ne la buur dee na ak lu ci mën a laxasu ci wàllu politique terewul wopp si moom mi ngi fi ne faax teg ci nag jàpp fi lees lool ndax suñu dundin moo te dara lañ ci soppiwul mbër la muy sekki moom jàngoro ji ponkali fi doon ngand ngandulu yépp muy Amérique Angleterre France Espagne ak Italie euh, ci xeef ak xip wi ñoom ñëpp la yóbbu arlo xoolal bokk fi Boris Johnson numéro 10 bu Londres premier ministre songee mbot la ko tëgg ba mu ci jógee la mu njëkk a wax mooy ne Covid 19 euh, du morom du morom moom romb nañu ko ku xool la mu def euh, fee njool màkk tëdd tëj lépp nga xool la mu def fee njool mbàkke tëdd ca Touba la mu def fële njool faama tëdd ca septième gaar man mi yaru Tiwaawan jànge seeyam Ababacar Sy daan jóge cànd aw kuli ngi jaan bëtt commercial jaar ndut yegg kër maas ku ma ni woon bés dina dikk aljuma jot doo fa dégg naasiril xaq bil xaq ma weddi ko euh, ku dégg nii président de la république waxee nga xam ni jot na nag ku ne doon sa magum bopp doon sa docteuru bopp bañ a yaakaar benn yoon ci ñii ñu dénk paj mi di ministère de la santé euh, ku dégg la leen Serigne Babacar Sy Mansour wax nga xam ni lajj nañu bu yàgg ci xeex bi te lajj moom mënula la weesu toll ci digg xeex bi ay fajkat di ay médecin doctorant na liggéey ba dee te seen dara matul ñuy laaj seeni i payoor yegg ci bay xiifal grève de la faim te kenn fayu leen te xaalis bi ne gàññ ci seeni i poos ñoom dara leeru ci nag waaye li may dégg fépp mooy ne xaalis baa ngi ñuy pasar pasare ak seen xarit na di waajal seen i factures yi ñu koy firndeele waaye nag ba ñu yegg ca li ma mënula dégg daal mooy takkal sa masque te joxewu ay masque raxasul ndox amul te joxewu ab saabu bu doy toogal sa kër te joxewu dund fooye askan wi lay gën a nuru wax ji mooy lii président de la république wax nañu dëkkaale ak jàngoro ji góorgóorlu bi mën a jóg daani dooleem mën a dundal njabootam bala fee xiifa rey kenn ndax genn wàllu kasara dara moo gën kasara wasalaam ba beneen kon